ma hmm. ne damay laajte rek dégg naa ñenn ci gaynde yi yëg si nañu hmm. ndeysaan yéen a ngi waajal li nga xam ni mooy rëbbi bi rëbbi coupe du monde yàlla nañ ca yegg ak jàmm yàlla nañ fa dem ak jàmm ba dugg ci ak jàmm la nga xam ni moom la Sénégal di xëccoo yàlla nañu yàlla defal ñu ñu ko ciix man ñu ko jàpp ak ganaar ciix mu noon kéeg ñan àndaloon ca compétition ba ñëpp ñu ñaf leen ñu wàcc ñu indi coupe bi fii incha allahu rabbi yàlla man na ko yàlla na ko yàlla defar rek ndax yàlla boo koy ñaan danga koy ñaan ci lii saxal nanu li laahi rasuli ak mbokk benn sëriñ benn buxaaba du ma wax sëriñ sax benn buxaaba benn ñaankat bu mu génne di wax nan ñu may rek gis nañ fi ñu naan watu ju leen ay nel man damay laaj nelu suuf lañuy ñuy watu wala nelu kaw wala nelu poqotaan ñett ñetti nelaam bu ñeenti nel bu suuf bu kaw bu poqotaan man oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk nag diin paar laa ama mayaabul man watu moom dama fa fekk xam lan la nan nu may <laughs> naa wat leen karaw fii wat lañ karaw fii wat lañ karaw fii yow mi wax waxi nel bu fekkante dañ laa diggal sa saraxu saraxu karaw nga wax nu wala saraxu nel nga wax nu gars yi xamala moom solo nanu ñaan rek lu waay xam na ko ñaan mën a tari na ko ñaan ñu fexe ba kubbi ñëw fii waaye xam nga coupe d'Afrique kenn waxutoon kon nan nu may nan toog ak digguma <laughs> nañu toog rek te may nu gars yi nañuy jàpp di julli di ñaan yàlla rek yàlla man ñaan mën na lu ne ñaan mën na waaye naan saraxe ay nel nan watuy nel ku baax damaa jàpp ni bis buñ watoom nel tan tan tan dana xaax xaax ba tim kenn ku ne mu coppate la capet capet capet capet yàlla na coupe bi ñëw barki bi mal xaam lakk bar wasalaam Thank you